sama doom la. waaw sama doom ñoom Pagny. nit boo ko suturaalee yàlla da lay suturaal. waaw kay. xoolal suturaal leen ma rek waaw. boo ko yëgee. waaw boo ko dañ koy ñëf fexe bu mu koy. da koy da koy da koy da sa lam bu dem. waaw dégg nga waaye fen weeru koor sax baaxul. kenn fen kon kon sama rakk la sa sa cousin la. sama cousin. waaw aywaay cousin waay. eh cousin yow. cousin. yaa ko wax de. ah bu ko wax yow yaa war a téye sa lam. yow yaa war a téye sa lam. foot man xam nga du ma boole sama bopp. te wóorul de da nga jëkk rek boole sa bopp yow doo ko tay. ah man du ma boole sama bopp bu génnee damay xam ne yow yaa ko wax. non non non non dama lay wax rek. waaw ah, waaw maa ngi dem yalwaan ji. waaye yalwaan gi nag danga may lu soo rek toogal fii ci kër gi. mu toog waaw tey am nañ lu ñu dundee bañ toog noonu. Hmm. waaw. mais looy wax nii. kii kii laay waxal ñànku laay waxal. kii. ñaar bu ñu la la ba tamit bu ñu la bu ñu la bu ñu la bu ñu faralee moom. Ah. bu bëggee fen day day mel ni ku feebar. kan kan kan kan moo bëgg feebar. ngi feebar bëgg am lu mu génne mënu ko ak génne. yow mi yaa bëgg a wax yow mi yaa yow mi yaa ko bëgg a wax. yow mi yaa yow mi yaa sama yaay moo jukki lan la ko wax xoolal mu kii mu daa am kii. moom mii moo ko bëggoon wax. mu ne mu ne ah fekkat mag la. yow mi yaa ko bëggoon wax yow. ah sa nijaay moo jur kaa wax nga wax nga. sa nijaay moo jur moom moo jur kii. nanu ba lay wax nii. kii kii laay waxal ñànku laay waxal kii ñaar bu yéene ba tamit mu falalee moom. Ah. moo bëgg fen. ñu ngi feebar bëgg am lu mu génne ko ak génne. yow mi yaa bëgg wax yow mi yaa yow mi yaa bëgg wax. yow mi yaa bëgg wax dama moo jukki la ko mu jukki daa moo wax. la. yow mi yaa ko bëggoon wax yow. Ah? sa nijaay moo jur kaa wax nga wax nga. sa nijaay moo jur moo jur kii moo jur moo jur kii. yow sa nijaay ne ma kii jarbaatam la kii doomam la. Hmm. xaritam la ko tuddee benn xaritam. bàyyi leen fen fen baaxul ci weeru koor. fen nga de kii moo ko fen. ñàngu yow mën nga de. bu bëggee lu fen ah bu bëggee wax ni affaire bi dinaan kan wax ma wax ma wax ma gis muy fukki di noyyi. bàyyi leen ngeen def xamuma ne yow yaa ko fen yow yaa fen. léegi kii kan la laa bëgg a xam seen jarbaat jarbaat ni jaay la wala. waaye nag xoolal waxuñu ko nag seen doomu ni jaay loolu yi jënd wax doomam la waaye jabaram mais bul ko dara seen nijaay amul benn jabar man kese maa jabaram. maay aawo maay ñaare maay ñetteel. yéen nga yaakaar ni yow yow rek yaa ko moom. lay nga sa bopp rek. nijaay. fay ko fay ko fay ko dëkk ba ñaar rafet. nijaay. nijaay. yow. jàll si. nijaay. eh toog leen ngeen naan tey ñoo daw. dafa xool li ñu xool ci jàmm nag. waaye jaay jaay la sëñ. ah dañ a. sa nijaay seen. nangul nangul baax a. may may leen waaye yéen lu ngeen tiimee. xaa xaa xaa xaa wuy ma. baaleel seen nit yi seen seen nit baaleel ko xooli waale bàyyi li ko joxe. parce que yëgul li xew. ah lu xew waa jàmm. jaam toogul fii toogul fii. nijaay ah. waaw fii. waaw nga ñëwee sama kër yaay di ma tax. waaw da nga ne ma woon maay beneen soxna amoo njaboot waaw waaw waaw waaw dëgg la kay. fi ñëw démb laaj naa la ko nga ni ma sa jarbaat la. Moon Njaay Moon Njaay jarbaat bi lekk lekk xale yi nee nañ ma. nijaay yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg ñaari xale yi nee nañ ma sa doom la. ñànku moo ko wax man waxuma ko de ñànku mi moo ko wax. ñoom ñaar daal ñoo fi toog di ma lim lim ku fen ku fen ni mbaas mbaas ki taama sudu waay ñàpp. waaw yow mi yaay yow yaa ne. doy na doy na doy na. te moo doon dili la sax ku doon dili la. yéen ñaar ñëpp a dili la. doy na doy na. Eh, sa doom. nijaay wax nga lu leer. loolu loolu nag. dugub bi oh. sax ko toggati. yii jërë paax bu ñaam. wax nga mu koy dagg. wax nga lu leer ñam la nañ ko suturaal. am na loo xam ne eh, nag am na loo xam nag du waxtaanu biir du waxtaanu euh, biti waxtaanu biir nekk. waaw waaw bu ndogoo ba tëj sunu buntu ba xëj sunu buntu tëj dinañ waxtaan. bu soobee nijaay xale yi laa bëgg li wax nga leeral ma ko léegi nii. xaar ma guddi. waaw waaw waaw waaw eh, am na loo xam. amoon sa fit ak sa fula. islam may na la nga takk quatre femmes waaw waxaale ko ñaareel la. waaye moom bi may takk benn la dëggaale woon ak man. daal laa bëggoon takk moo tax mu naqare la wax ne ko am nga beneen jabar waxa nga. waxa am nga ay doom yu bari loolu moom du waxtaanu du du waxtaanu. bi diggu kër. mais wax ko rek mu leer benn yoon. ñu jaay ci noppam. ñu jaay loo may na bu wax ma. waaw wax ma toog ma toog su ma dul toog ma dem. waaw waaw boo bëggee def nga def bu du yow di keneen. waaw wax nga lu leer ma xam. bu du yow di man wax na dëgg lu leer la wax keneen. waaw mun mun mun njaay sama doom. waaw kese leer leer ma kese doomam la ci doomam la jar jooy kese kii moo ko fen kii moo ko fen eh, ni jaay waxoo ma woon ne waay ni ma sama baat may ka baatam may ka may ka may may ka may ka may ka baatam wuy ma dinañ waxtaan dama ci biir dama ci ma fekk la dama ci biir ma fekk la dem sa kër yéen ay ñànku mi ma ko wax ñànku ma ko wax duut rek ngeen nekk ñànku la ñànku la ñànku yéen yéen yéen yéen yéen a dudd ci gëléem nàmp ci mbaam kon kii bopp yabooyam bu bon bi mu yor tey maa ni bopp yow ngay waxuma la bopp yabooy jarañ sax bu bopp jarañ nga yor fenkat nijaay mer nga nag mer nga de nijaay fenkat bu bon bi te wax defoon naa wax naa ko weeru koor kenn du ci fen dinosaure yow kan may dinosaure yow ah dinosaure ay dulkat ngeen rek kan mooy kan mooy bu mag bi. kan mooy bu ngand bi moom moo ñu fi wax ay li jar ay yu kenn xamul. te yaay bu ngand bi. bàyyi ko muus ka moom lekk la tiiti mu ngi jëm tey moom muy muy dafa tof dëkk naa naa naa ko awaja yow booy takk doo takk rek noonu nga ne am naa jabar ngay ngay wëtt rek bàyyi ko ñoom rek day sax xolo xolo mu amoon ñu kër gi sax